Macky Sall daal day jël décision euh, assainir wala bokk euh, réglementer li nga xamante ne nii moo di boobu le milieu. waaw parfois dañuy def la charrue avant après ça les bœufs laay wax. xaw ma nu ñu koy après la mort médecin la mort. Mm-hmm. ñaata deux douze ans de pouvoir la Macky Sall def defe na. Mm-hmm. mais douze ans de pouvoir boo xam ne on a une mm-hmm. lépp loo xamante ne jëm na ci wàllu administratif tey jii ci bëggoon wutee ay kayit. dem ci ambassade yi nga xamante ne nangootu ñoo jox Sénégal yi visa. di jël seen rendez-vous yi di ko jaay. tey ku ci bëggoon wuti kii da nga koy ñun dañuy mais gis nga sénégalais bu ñu bëggee tukki ni ñuy toppatoo kii ci ba mu nekk ci yor tegu ci règle. rawatina administration Sénégal bi nga xamante ne ñoom ñoo ci war a jiitu. affaire Ndella Madior Diouf bi dafa siiw te fës rek mais yàgg naa am bari na ay internat yoo xamante ne ak ay. garderie d'enfants yoo xamante ne ay crèche yoo xamante ne dañ ko war a mais c'est du da ngay gis ku xëy rek taf crèche ah. mhm. ban norme daray norme administrative amoo ko lijjanti Sénégal branlo moo fi am ak chemin graissé dugal taf taf ñu jola kit bi nga soxla am na bu ñu bougé seen kër 48 heures lu ñu soxla ci ay documents dañ koy am mais tey ça ne sera ça jamais trop tard aussi parce structuré aussi mu yéex mu gàtt décision bi président jël day kon di sax mais da am loo xamante ne l'agence de la petite enfance et la case tout petits bi nga xamante ne may mun a Sissoko moo ko jiite moom it vraiment elle est saluer parce que ba ci ba ci jotee ba léegi euh, elle communique elle fait un travail extraordinaire parce que boo xoolee tey Euh, stabilisation document juridique bi nga xam ne mooy fixe les conditions d'ouverture euh, les règles bi nga xam ne mooy tax nga am euh, internat wala nga am. crèche crèche wala wala pouponnière mm-hmm. moom moo njëkk a def pratiquement démarches yi ak demandes yi. ndax mm-hmm. bi mu saytoo milieu bi xool na ne bëri na ay manquement bi mu wootee réunion ak. présidence conseil d' administration ak ay nitam. dala ni il faut ñu bind benn genre requête bi ñuy adressé au président de la république. te dama ko yàgg suivre nag bu def ko combat néew la ñu defal ki v moom may mën a soxla te waxul ne président de la république ak structure yi nga xam ne ñoo seq administration bi. nañu fexe ba créer ñu environnement bi nga xam ne mooy adéquat pour nga ubbi structure yi. Mm-hmm. tey bu fekkoon ne ba mu koy kaas ak léegi adapté woon nañ décision yi ba président jël décret bi mu jël tey. Mhm. defoon nañ ko je crois que situation bi ñu yegg si mën nañ fee bañ a yegg si mhm. mais des fois nag liñ naan yàlla buy defar day mel ni ko yàq te il ne sera jamais trop tard comme que nag am na nañuy veiller à l' exécution immédiate de cette décision bi am ne président de la république jël na ko bu ñu duggee ci cadre xale ku ne xam nañ ne ñu ngi koy wax léegi xale moomin la. Mhm. et ça tombe à pic au moment où. président jël décision mu tombeek Serigne Saliou Mbacké mi nga xam ne anniversaire am. Mm-hmm. te ñu xamee ko ci xale yi. Mm-hmm. donc rien n'est hasard pour man. ci mm-hmm. côté boobu. nañuy gën a saytu boo demee daaray Koki maa ngi koy déglu barki démb ñoo naan ils ont près de cinq mille près de six mille gone yuy jàng alxuraan foofu. ñoo leen di yor ndékki ay ngi reer et pourtant daaray Koki mais dafa structuré wu tellement tellement que sur tous les plans il se fatigue du matin au soir pour xool sur le plan sanitaire comment prendre en charge ces enfants santé moo jiitu ci xale et je lance un appel aux la diaspora mosuma dem kokki xaw ma fa kenn mais dama sanaan benn ITV barki dem mais sama yaram dafa daw dafa daw imaginer ñu ne la ñoom li ñuy ci añ par jour ndekki añ reer par jour rek près de 6000 gone nga leen di jox ndékki ak reer kenn du ci yelwaat. dem ba sëriñ bi di créé benn restaurant boo xam ne dépensé gu na ci près de 2 milliards. maa ko seetaan télé Pape Ngagne moo fa demoon defee fi ITV ma tombé ci di sappe ba yem ci boo demee restaurant bi boo xam ne dina permettre deux heures temps yu ne. près de presque mille xale. da en tout ña fa nekk ñëpp ci 2 heures temps danañ ndékki ak reer dem ñibbi dem nekkaat ci jàng nga. donc ñooñu ñoo soxla soutien social financier tey dégg ko ñu ba léegi daaray kokki mu am ay anomalies yu mel nii li dama wax loolu mooy degré de nombre d'enfants yi fa daje ak ñoom dañu leen di topp toppatoowee ba am lu leer la moo tere ku yor cinquante xale wala vingt xale am problème boobu Serigne Saliou Mbacke yor na fa ay ndongo daara xel kom mhm. près de trois cent daar ndongo daara ju ne mosuñoo dégg Serigne Saliou Mbacke ñu wax benn anomalie bu jëm ci gone yi ca xel ko da gis ku feral sax ne ku bàkki téyal loo ko jox nag mu jël loo ko jox mu jël mais tey moom moo leen di dundal du ñu yelwaan du ñu ñaani du ñu sollu tilim te bés bu ne ñu faj leen ndax dañu fa am ay hôpital donc tey c'est très compliqué que yor mbooloo yu toll noonu ñu leen di seetaan di bàyyi ay quelques tierces de personne yoo xam ne à de des branlo mm-hmm. à travers autorité bi ñu yor mm-hmm. mais ils sont en train de faire des choses yoo xamante ne c' est plus que clandestine le cas de Ndella yàlla ko yàlla génn si tolof tolof yu mu ne mais sooy diagnostiqué waat kaawam mais da ngay posé wu la question c' est quoi problème mm-hmm. da ngay dem ne commerce d' enfant la. Mm-hmm. jaayam xale lay mujjee doon. on se rend que on se rend compte que chaque jour révélation yi génn. mais bi ma si gën a doy waar gën ma cee def problème mooy bi muy wax naan jigéen ju ci ëmb. say waajur génnee la ne boo ñëwee man maa lay wasinal mu dem bay bàkkoo loolu ma ne lii mooy dem leen gën a ëmbi mm-hmm. encourager dépravation encourager dépravation mm-hmm. encourager ëmb gi liberté sexuelle libertinage bi mm-hmm. liberté de sexe maanaam dem leen ngeen ëmbi njaaloo ji leen ngeen andi bu ngeen ëmbi ngeen andi ma jël ça c'est extraordinaire buñ demee ba jël di daganal ku ëmb man normalement sax man bu doon man la ku ëmbal ku ñu ëmbal doo àndi sa doom foofu parce que loolu motivé nit ñi dem nañ ngeen def lu bon yàlla ma yàlla jéggal ñaare ba mooy ki wax ne dama ñëw jox ko sama doom ne den delloo moo ko mu ne ma fay ma nangam njaayam njaayam nit a ngi bu ci xaalis ka see dugg rek ak waxaale rek mooy commerce des enfants dugg na yaa beaucoup de paramètres yoo xam ne moom déjà sax ci biir ITV mi mu ko mujjee si biir kër ga mais mu ngi wax ba dugal boppam te xamu ko parce que bu demee ba wax ne waaw su ma yoree sa doom di ko nampal def ci moom lu ma 2 millions ba mu commencé. prise en charge bi yëpp prise en charge bi da may fay kon njënd ak jaay dugg na ci. Mm. kon def te yàlla tax amatul deuxième point mais gone yi nga xam ne dañoo judd. Mm-hmm. mais seen papa yi ñoo leen tuddee ay Sadio Mané ay Macky Sall wala ay Ousmane Sonko wala ay Massamba ak Mademba wala moom moo leen tuddee tur yooyu mm-hmm. ban autonomie ak ban autorité la am ci kaw. waajur yooyu waajur yi tamit matadi <laughs> irresponsable sa doom bu fekkee mënoo am responsabilité boo téyee sa doom yaral ko sa bopp yoon dalaa daan waxtuma laa sunu borom juróom-ñeenti weer nga ëmb ko sa diggante dund ak dee xaj nga war a am doom su mu doon sa bakkan gën la sa bakkan nga jël sa doom sànni ko ci mbedd ak foo ko munti dugal te saytu woo condition wala nga koy saytu saa su ne yow tooñ nga yàlla suñu borom ñaata jigéen ne ci sëy te amuñu doom. wallaay kay dëgg. barke alxuraan yaa naa plein yoo xam ne j'en connais des femmes yoo xamante ne mënuñu wax ak yow ñaari baatu. te jooju xewal barke Seydina Mohamed bii ma yaakaar. Mm-hmm. barke ñoo xam ne yàlla may na leen lépp ñu ma xam laa la wax di déggante ñoom di leen di fréquenté. amuñu doom am na ci ko xam ne dafa ma woo téléphone bi mu gisee affaire kii bi. mais dama mujj sax jël taxi fekk ko fi mu toog di ko defal biir këram ndax ni mu doon jooyee si. bëggu doom nga war a am doom war ko taxaw def ci moom li war ba ëllëg waxuma la mu jariñ la. Mm. mais mu jariñ askan. loolu dëgg la mais ñun dañ naan da nga war a jur doom mu jariñ la doom bu lay jariñ dëgg dëgg dëgg day nekk doom bu barke bu jariñ askanam moo xam ci njàng moo xam ci xam-xam moo xam ci sutura ci teraanga moment bi ñu toll nag parent bu nekk tu es responsable et on a toujours dañoo mas a nekk responsable. ñun dañoo jàngal. Mhm. maa ngi wax naan école Liberté 6A bi laa jàngee. sixième ba CM2 am ñu ma bokkaloon classe ñu may tudd fii tey Ameth Thioune. ñoom Zik Zik. Mhm. Zik xamee wuñ ko ci ay restauration. basket lañ ko xamee. dafa représenté Sénégal fu ne. seen buntu kër amoon terrain basket. Chicago mu tàggatu fa. terrain mhm. Chicago gi. boobu tali bii berte bii moo nekkoon terrain Yogo. moo nekkoon terrain Yogo après nga ñëw terrain Sibak mais ñoom ñëpp terrain Chicago gi. ba ci Alassane Ndour bii fubal. mais Alassane Ndoye basket la gënoon mën ko football. puisque moo doon dàq football la. moo basket la gënoon a mën moo gënoon cuune ci football ci waa këram. man nga non mais basket la gënoon mën moo tax bi ma ko gisee muy football dama ne attends c'est quoi le problème. mais P euh, bi nekk Soxna FM. xaadim sañ xaadim. c'est boobu li ñu doon toppatoo di veiller ci seen doom yi. ba moo mm. guddee tëdd si. xool. sa pap leer moom mu ne ma ma ñëw léeg-léeg vingt heures ne ma foo newoon dama la fanaan ni fa nga newoon mais bu ko waxee ak balaa ngay wane ginnaaw am na muy ubbi bunt bi benn lay doon parce que xam na ne ca mbedd ba ngay fanaan yi donc c'est pour dire la responsabilité parentale. Mm-hmm. amu ci wóoju bu ki war bu ci war a mun a maslaa waxtu ma laa ngay dégager say responsabilité joxe say doom mais daal le président de la république jël le décret. Mm-hmm. on salue aussi vraiment. voilà Maïmouna Sow la directrice de la case de Toupati Sissoko euh, plutôt vraiment elle la fait un combat ba lii tey jii président décrété ko léegi nag nañu fexe def la maximum possibilité exécuter décision yi mooy recenser les pouponnières na internats. recenser mboolem barab boo xam ne dañu wax ne dañu fay yar xale ak garde yi suñ demee si ñoom li ñu leen di njëkk laaj seen i dossier administratif yi leen di autorisé ngeen ubbi. de passage Seyda Xabsa Fall bi nekk seen TV tey waaraate yor na internat bi xotaan man dem naa ba foofu mais c'est extraordinaire la manière dont il s'occupe des enfants moo tax bi ma déggee soxna Ndella wax ne am na am na 48 bébé ma ne mais moo yee kay kaay leen ëmb ku ëmb andil ma kay njëkk a bëri doom macha allah. amiin mu mel ni fuite de responsabilité bi ñu doon waxtaanee. démb dafay dellu si waat.